la taxoon ñu woote dialogue bi defe naa mooy lu jëmoon ci élection yi amnistie bi nag moom tudd na ko fa moom tàmbali nañ ko ndax député yi tey jii commission de luwaaye ak yooyu ña ngay waxtaan suba jàmm la ñuy dem plénière ngir wate ji ko mu loola moom lu gaaw a gaaw la dox bu gaaw la am euh, noo comprendre amnistie ak yi ci aju bu dee ci daara de hmm. surtout Israël dafa noo jàngal lu am solo surtout Israël faqad ja'alna li waliyi sultaanan hmm. falaa yusrif fil qatl mu ne ku ñu rey sa bokk man yàlla may naa la pouvoiru nga fayu fayu mooy lan nañ àtte ki rey sa bokk mi ba xam ne moo ko rey ñu teg koy daan mu ne soo koy baal nag nga baal ko kon ak rey wareetut a xëy xëy rek daje ne wate nañ loi boo xam ne ña defoon nangam ba ca ñaray ak ñaray ñëpp baal nañ leen. loolu saafara ju jur jàmboro lay doon. tey bala ñuy amnistie nit ki dañ koy atte mm-hmm. ne ko tëj nañ la nangami at. Mm-hmm. ay bokkam yëg ne diw tëj nañ ko nangami at. Mm-hmm. seen xol nag di wàcc. ba soo ñëwoon ne baal leen ko ñu ne baal nañ ko waaye ni mu demee nii. ni mu demee nii bu doon mm. ci daara ji du ko mm. defee nii mm-hmm. dañuy def enquête xam ñi def mm-hmm. bu fekkee dañ leen defloo ñu xam ñi leen def loo mm-hmm. bu fekkee dañ leen rax ñu xam ñi leen rax buñ ca noppee nag mën a wax ne diw kat lañ doon wax nangam moo ko def mm. kon teg nañ ko nangami at nun lañu nun la ñu amnistier ci biti nag baax na ci bitti baax na waaw parce que boo ko boo déggee ni léegi dañ koy def parce que ñu am jàmm mhm. pour réew mi dal ak naa mu ngi daal xam nga loolu baax na mhm. waaye nag saafara day jur jàngoro léeg-léeg mhm. dañ ko denc ba mu nëb ñu naan ko tey waaw ndax jàpp ñu ni ñoom li ñu wax ne dañoo bëgg pénc mi dal président Macky Sall wane ne loolu du lu bees ci Sénégal yu ne xew na fi waaye dañuy dem ba mu yàgg ñu toog waxtaane waat ko indi ay loi amnistie am na fépp ci àdduna bi joxe na misaal réew mu mel ne Afrique du Sud ya ca aju noo jàngate loolu ndax jàpp ne loolu day indi eh, ak dal ci pénc dafa am lu ne ci réew mi lu ñu tuddee code électoral code électoral waaw code électoral hmm. am ci de code de la route hmm. am ci parce que bis boo ci xompee dara hmm. léegi ñol-ñol day am looloo koy jóg. dëgg la day tas affaire day tasaaroo léegi. kon lu muy numb loolu kenn warut a laal. keroog ba fi Senghor déparé. Hmm. ak fii toog. Hmm. bu ñuy jub ay élection hmm. ñu naan quartier génn na. ah dentité nangam. bureau bureau sangam am na quartier yu manqué. xam loo xam ne kenn du ci am problème. léegi nag boo ko defee di ko layal loolu nga koy layal booy booy booy doxal kii bi. Mbàkke hmm. hmm. dañu war na jënd réew mi ñun ñëpp a ko bokk. Hmm. ku bëgg carte électeur boo subaa bu ca ngoon nga nga am ko. dëgg la du dëgg. ku bëgg dentité bu subaa bu ca ngoon nga nga am ko. kañ lañ tàmbalee ta change suñu dentité yi. moom kay du basang lañu amoon. wallaay basang nga oustaz wallaay carte d'identité bu rëy booba. ah basang lañ amoon. bi ñu ko soppee. am nañu jotugul ba léegi dëgg la. ba léegi da ngeen ñaan jëli leen carte yi. bi ñu ko soppaatee nii lañ foo dem. ñu hmm. laa laa jógee. Hmm. waaw. lu wax ñu nañ la carte carte yaa ngi fa. Ah, gis ñu mu jóge de. waaw. ba nga jóg de jóge waaw ndax loolu sax xam nga carte ni mu bokk ci dundu nit ñu naan nañ jëli suñu carte d'identité léegi. <laughs> man ko loolu la jaaxal. gis nga nag toujours jours bu élection amee. Hmm. foofu la coow di tàmbalee. leneen la bu kenn def benn menn pexe pour diw du bokk parce que diw du bokk nun nun nun nun nun yi ñoo koy wax nun nooy ngàbb suñu carte dem ci urne ya ne diw du bokk waaw dëgg la de nañ ko képp képp nit ñëpp am sañ-sañu bokk askan wi ñu jox leen sañ-sañu tànn jeex na ñu tànn ñu tànn bu baaxul ñu tànnaat gis nga fi ne ah. su boobaa ki am benn mandat ñu teggi ko mm-hmm. day féex mm-hmm. dëgg la def na lim bëggoon defal nañ ko doxut teggi nañ ko <laughs> jaama danañ ci ma fa dal kon de loolu daal gis nga nag bis ñu doga yoon woowu mm-hmm. doo fi dootu fi dégg ñol ñol dëgg la dootu fi dégg benn ñol ñol tey ah, embouteillage bii mm. ni li code de la route wax buñ ko doon def mm. dana tane di waaw ah, dana tane ñàkk koo def de moo ñu indil problème bi réew yéen ñu jógee suñ bàkke waaw dama naan Ibrahima Ndiaye yéen fii neex naa dawale de ndeysaan man de moo fi ne ah, parce que gisuma benn oto bu ne mboran joxos waaw ah. mais fii ñi ba ci ñu yor circulation bi oustaz day mel ne ñun fii ku ne da ngay am sañ-sañu teggi yoon léeg-léeg ñoom ñu loo nit ñu ne leen jaar leen nii teggiloo nit ñu jaar leen nii foofu laa jëm si foofu foofu lay fii kii nag mun fa ne ku ne teggi nga xam ne kon pénc bi léegi mm-hmm. ginnaaw waa ji day taxaw nga bëgg wër rond bi. mun mhm. la jaaree ko nii. waaw feu bi tax tàkk rouge muy la jàll. Mhm. Eh waaye ndaw moom am na sañ-sañ yooyu moom. ah waaye léegi su léegi soo duggee ci soo duggee ci tey sens interdit. waaw. <laughs> Mbacke toujours moom nekk li la. waaw ndeysaan. <laughs> waa ja sawoon ci miir ba ca Mbacke. ndeysaan. ba ñu ne ko yow da nga mënut a jàng mu ne ah kay ñu ne ko li jàngal li nekk ci mu ne saa faal faal am na oto. loolu lañ bindoon ci miir bi. déedéet. miir bi lu ñu fa bind. interdit ma. ah ko fi saw. waaw ah, ci tubaab loolu lañ fa bind. waaw moom mu saw ba noppi ñu ne ne ah kay mu ne jàng naa. moom mu faal faal am na oto. <laughs> fii ko fi saw fii la ñu <laughs> li tax ba di ko nettali toujours mooy nun suñu réew mi dañu am ay loi yoo xam ni c'est ñun ñoom loi yi nii def. dëgg li ñuy teree ngi nii noo ngi nii. waaw xuus ci li ñuy tere te ñun ñu koy tere duñ ci xuus loolu lekk léeg mm-hmm. mm-hmm. mooy saa faal faal. saa faal faal am na oto loolu neex. wax nga dëgg la oustaz ñun li ñuy tere ñu da koy jël mën na ko ëpp téere takk moom. yàlla xam na ko compliqué. Eh, bàyyi njaga njaay du xam nga. waaw laaj bi jaay wala jaratu dañ fa yoon. très bien rahmatulah aleyhi. dafa am comme joxoonoo fasam ne ko jaayal ma ko. Hmm. waa ji jaay fasoo lekk xay ba. waaw. bàyyi jëgg bind ko lettre bu tàng jër takk. bu ma wax loolu waaye. ah moom la jaay. waaw ko lettre bu tàng jër. waaw moom mu ñëw la ko wax na ah. <laughs> jeex na. xam nga ñun suñu problème dafa sérieux. yàlla xam na ko de <laughs> mu ak si si sëñ bi sëñ bi ne ko ak diw li nga def noo ko ma ne mu ne ci lan mu ne ko ana sama façon mu ko jaay naa ko noo def njëgg mu ne ko fay ci impôt dépense la ci des da ngaa jot sama lettre mu ne ko ay jaay jaate jot naa ko de jot naa ko de. <laughs> soo jàngal nañ la ko mu ne ko ah déedéet lettre ba léegi nii daal di wane fi mu ko takk <laughs> alaaji bi Oustaz Ndiaga def <laughs> alaaji Ndiaga ne ko nag ginnaaw yàlla si lettre bi wootee dem police <laughs> mu na téere mu takk moo wootee dem police ah. maanaam gis nga fii de mooy sunu sunu sunu penc bi nuun la mel. Mm-hmm. Mm-hmm. circulation beeg. Mm-hmm. élection yeeg. ndeysaan relation yeeg. wallaay politique beeg. wallaay moom daal mu ngi noonu rek. moo tax moo tax day mel ne lu war a leer waaye leerul. li wax nga dëgg nag oustaz. ndax boo taalee télé bi bañ wane professeur yi. ñi ko naan article 36 L 221 moo wax nangam bu subaa kenn yoon waxut loolu. léegi ñun ñi ñu waxal xamuñu ci li ñu wax dara. jeex na jeex na tuuti lañ ci xamul ñun. débat bi gën a ngand ci débat yi. tubaab koy def tubaab lañ koy def. Euh, suñu suñu jàmbaar ja waaw euh, Touré Touré Babacar Touré Babacar Touré ndeysaan waaw journaliste bi da ko da ko taalal micro mhm. mu làkk tubaab ba noppi mu ne ko wax ci wolof waxal ci wolof mu ne ko danga maa yeb waaw <laughs> dëgg la de dëgg ñoo ngi toog maa yeb wallaay bi nga ñëwee waaw da nga war ci wolof wax ci mu wax ci wolof yow nga xool noo koy defee waaw léegi waxuloo ma ci wolof ma wax tubaab nga noppi wax ko ci wolof ko ci wolof mu bëgg a wax ak ñaari ñaari groupe yu bokkut tey doon benn groupe lay waxal xaaj leen ñaar gis nga sunu sunu penc bi mhm. il faut nu waxtaan. Mhm. xaw ma nag dañuy dellu dialogue gi waat. xaw ma ne da waaye il faut. dialogue eh, baat baat bi moom safatul Sénégalais yi. Ah! moom kii nañ ko wutal yeneen tur. nañ ko xaw ma ndëpp lay doon xaw ma lu muy doon waaye nañ ko waxtaanee waat. xoolal tey dañuy jël ay gone. Mm. jox jàngalekat. Mm. ne leen defar leen ñii. Mm. bu weer dee ñu fay leen. ñoom ñoo war a defar nit. Mm-hmm. ba nit nite. Mm-hmm. bu nit nite woon kuñ koy laaj. Mm-hmm. ñoom. Mm-hmm. waaw. penc mënul lemel. waa ji dafa lalum njaayam ca dëkk sàngam. Mm. alkaati bu ñëw dàq ko. dem mu ñëw lalaat mu dàq ko mu dem mu ñëw lalaat. waaw mu dàq ko. mu dàq ko. ñeenti la lu mu ñëwee. def na ko tey dàquma la dama lay laaj. wallaay dama lay laaj. foo dëkk mu ne ko Sénégal. ku jeune mu ne ko Ablaye Wade. mu ne ko ñaata ngeen mu ne ko fukki million juróom. waaj a toog génn mosaaram di jooy. ndax lan nee na daa yërëm Ablaye parce que moom kenn ki la mënta <laughs> da ko waroon na ko tax Ablaye Wade jël na journée bi yëpp. waaw da waroon te nag président ba comme ñun la mel. <laughs> kenn la ci ñun. <laughs> ñu ci gën a compliqué. <laughs> lu nekk waar la Oustaz wax nga dëgg de ñun am nañ problème war nañoo am nañ problème war nañoo waxtaanaat moo tax fi nekk nii bu ñu weesoo élection yi nii waaw ki ñuy jox réew mi waaw nga def na ñaata problème la am Oustaz kay kooku ëpp problème yëpp doo dégg ñu mille mille waaw am na am na dix mille problème dix mille problème waaw dix mille problème kii moom dana am dix huit millions problème problème ak problème boppam plus <laughs> <laughs> moom koy li nga wax oustaz affaire bi war nañoo waxtaanaat. ah oui war nañoo waxtaanaat de. war nañoo waaw man de réew mi ku koy laaj yaa ma ah. li mu jaral gars yi nii laaj Sénégal oustaz Sénégal mun mel. ah ñu ne ko bëgg a defar nga yaakaar oustaz. yow na benn ci laaj ko bëgg koo defar koy jox. waaw dañuy defe ne problème yi nga fi fekk yëpp boo bësee bu tomb dañ. wallaay problème mu na ngay am yow it. ah loolu da la ñuy trois mois après rek. parce que ñi ci jot ñi ñëpp. lu ne la ñuy wax. ne ne noonu lañ koy defaree. baax na lu ñu diggee ko baax na te yombewut noonu yombewut noonu man de ñoom ma ëpp fit man de suñ kër mënu ma koo régler <laughs> fi mu nekk <laughs> woote ndimbal la ci des ñoom ñuy laaj Sénégal jeex na ila ila ila amiin